wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yawm alqiyama mbokk yi mu ngi nuyu di ziyaar xalifatul muslimin sayyidina alhaji abdullahi di ko ñaanal sunu borom ba yokk ko wér yokk ko jàmm defal ko afiya ñaanal ko woote bu tedd bi mu jëm mu di fàttaliku bés bii maamam du baax di taxawal ni ajibu daa'iyallahi ya mahshara al insi wal jinni inni rasulullah ilaykum kon ñu war a taxaw pour bàyyi xel bokki jullit ñëpp ci cent quarantième anniversaire de l'appel de Seydina Limamou Laye alayhi salaatu wa salaam nekk ci wàccaayu appel bi di di waajal woote gën di mbindéef woote ki nga xam ne bu dul woon ak moom dara du am bu dul woon moom yàlla du bind kenn mooy sang bi yàlla yónni woon démb ci màkk ku feeñ ci arab yi ku juddoo màkkatal mukarrama gàddaay ñëw madinatul munawwara yàlla jël fa ruuxam ne denc ko madinatul munawwara sunu boroom jëlaat sallallahu alayhi wa sallam pour moo war a ñëwaat ak dëliwaat mission boobu mission bi nga xam ne moom lu yónni woon yonent bi sallallahu alayhi wa te ku ko doon gunge ci woote ba di yonent yàlla Isa alayhi salaatu wa kon nag rendez-vous bi incha allahu samedi lay doon à huit heures ci Diamalaye TV par YouTube di daw sur Facebook Facebook Diamalaye euh, TV waaye di daw Diamalaye FM tamit ci rajo bi dawaale ci Facebook bi incha allah samedi ak jàmm yal na ko yàlla may nu fekk ko te dal ko allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam ba bàyyi laa naa ji moo daa yàlla waay samay